lolu ñu sauvegarder ko jusqu'au ci ñu gisoo lañ gisee ñuy wax yenn manquement yu am c'est pour que nit ñi ñu xam ne ne fee foofu rek la ñu mën a jaar bi mais sénégalais yi pare nañu pour voter sénégalais yi pare nañu pour exprimer leur voix loolu gis ngeen ko ci centre de vote yi gis ngeen ko un peu partout te gëm nañ ne dinañ génn massivement pour exprimer leur vote ils ont attendu pendant sept ans